maaleykum samay abonné kontaan naa bu baax si yéen bu leen di fàtte abonné ci seen YouTube mi muy ci TikTok maa ngi ñëw tey ci international sénégalais muy kan Iliman Ndiaye mu nekk xale bu mun lu muy def am jom am fulla sénégalais yi nag bëgg ko ñëpp ko bëgg ñu bëggoon nag Aliou teg ko tey nag Aliou Cissé teg na Iliman Ndiaye moom tamit mu def différence mu wonal wone boppam moom Iliman Ndiaye boo xoolee bu jëlee bal bi dafa wàññi ñett jouru Qatar mu joxe bi passe décisif Bamba Dieng te nag bu ñuy wax ci Bamba Dieng dañuy wax talent bu nekk ci moom mais aussi qualité yu nekk ci moom te man bu may wax ci Bamba Dieng sama xel day dem ci Mamadou Niang mu doon jouer Marseille nekk international sénégalais même profil bi lañ am ñoom ñaar c'est peut Mamadou milieu offensif là, Bamba Dieng attaquant mais aussi mon comme milieu offensif Il Ndiaye amna qualité amna vivacité bo xolé ci club lay kon il luñ doon ci nako luñ doon deuxième bi mu passe décisif permettre Bamba Dieng mu dugal bii bii bu rafet moom Bamba jeen daf ko dugal bii bu rëy la bii bi mu ko dugalee sa moo rafet moom Bamba jeen tey nag bu ñuy wax si Ismaïla Jacob moom tamit mu bett ñu bëri tey parce que tey jour le jour boo xam ne ni tey dafa joxe ba mu jeex dem bu gaynde la doomu gaynde nag du du tuuti te wane na ne man gaynde la te wane na ne jàmbaar la wane na ne que mun na lu muy def moom ndax défense bi dem na ba mu jeex mayul dara jour Qatar yi jëm nañu essayé essayé nañu lu ne mu bloqué leen ku bëgg dem mu taakle moom Ismaïla Jacob yoo tamit ñu ngi lay félicité bu baax Aliou Cissé luñ doon xaar ci moom moom la def comme lu ma waxoon ci sama vidéo passé nee naa Aliou am nga ay joueurs am nga ay jeunes joueurs yu baax yu mun fuba may leen seen sens te nag Aliou Cissé def na ko may na xale yi seen sens te wane nañu ñoom tamit seen bopp ndax tey ku la woo di la laajte da ngay ñëw ba ci moom su la laajtee li nga mun nga wax ko nga wane ko xale yi loolu lañ def Aliou Cissé dafa am confiance ci ñoom mu teg leen ñoom tamit ñu wane seen bopp kon nag loolu mu nekk lu baax ci équipe nationale Sénégal boo xam ne ni tey suñu premier match bi dañ ko ñàkk deuxième bi mu nekk suñu diggante ak Qatar ñu door ko trois buts à un diggante pays ak Équateur ñu def un but partout Sénégal nag marsam bii di ñëw mardi ok Équateur lay tasel kon nañ ñaanal Lions yi ñaanal Sénégalais ñaanal suñu